بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 برحمتي أيا برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمنين lépp lu Sëriñ Tuubaa naa yàlla ma ko àgg waaye Mbàkke nga bokk ko moom premièrement juddu nga deuxièmement yaru nga waaye troisièmement am nga njëriñ te bëri woo ay wax te nag lu fanaan ci yow daa guddee agsi Tuubaa tubaarkàlla lu dikk nga def télé yaa ngi daw sanam yaa ngi daw réseaux sociaux yaa ngi daw sa liggéey ak sa yéene ci kër Sëñ Bamba yàlla na nga matal lépp masatuma ca wërsëg li Sëriñ Tuubaa daan woon ci yéen ba tey day yow nam ma ne ma ma tàmbale ma xam suma soxna gan ak li baax ma faatu ñu ko jël ci amina soxna aawu tubaarkàlla Abdourahmane soxna jëm Barka soxna jëm am sa soxna jëm Abdourahmane bàyyi ma ci jaxate yaay Moussa Fall Sali ak sëñ am sa tumi sëñ Bamba joxoon léppam ak Balla Faate barke sunu sang sagul islam nga ferte nga ci ñun ci warkalla macha allah boobu laa ko see sax nga romb kooku ma la jigéen yal nañ ci yàgg Balla yi kontaan nañu sunu xol seet na ii da nga liggéeyal sëriñ Tuubaa am lu mu ne gis na ko li nga liggéeyal sama soxna Jaara